wax leen la nga xamoo ci gën a fës si yéenekaay dañ koy tàmbale yéenekaay bi nga xam ne moo di le soleil le soleil moom la mu xëttee si xëttam ah, gu njëkk jàppal daal fi njiitum réew mi Macky Sall moom moomee ah, defati na lu am ah, solo naam naka jamono gi eh, jënd nañ lu toll si 370 bus Dakar Dem Dikk yoo xam ne daal dañ ko andi ginnaaw gi ne manifestation yi am na fi wala yi nag ay bus yu bëri am na ay yàqu-yàqu jàppal ni daal njiitum réew mi ñu jël beneen yéenekaay wax ca la ca gën a fës dañu jël yéenekaay ma bi nga xam ne moo di le quotidien quotidien moom nag la mu xatee si xatam gu njëkk université Cheikh Anta Diop ginnaaw gi nga xam ne boobu tey daal dañ ko te jàpp nag yéeni kay bi lam ca wax daal moo di fi ñu toll nii jàppal ne euh, fi nga xam ne daal moo di université moom moomee di leen ko tijji waaye nag bu ñu sikkondi ko si f SH euh, euh, moom lam ci wax daal moo di 3 janvier daal la ñoom li nga xam ne moo di aval waaye nag buñ ci xoolee euh, kudd moom waa jamono gi day continuer di tëj ñu jël beneen yéenikaay wax ca la ca gën a fës Sud Quotidien moom nag la mu xëtee si xatam gu njëkk nee na daal atum 2023 daal jàppal daal lañ ca gën a noté moo di ay tiis naam naka bu nekk immigration xale yu bëri yoo xam ne ñàkk nañ seen bakkan si géej bi accident yu bëri yi nga xam yoo xam ne daal lakk seen xaalis leneen li nga xam ne daal moom lañ ca noté moo di daal li nga xam ne daal moo di trafic drogue bi nga xam ne noté nañ ko si réew mi ñu jël bi ne yéenekaay wax ca la ci gën a fës moo di Walf Quotidien Walf la mu xatee si xatam gu njëkk moo di tey présidentielle ñu jëm ci moom naka lam ci wax daal moo di Pastef daal jàpp na fi toll ni ñoom aligné nañ lu toll si quatre mousquetaires naam nag lam ci wax moo di bu nekk Ousmane Sonko candidat la Bassirou Diomaye Faye Habib Sy ak Cheikh Tidiane Dièye daal loolu la yéenekaay bi xëtee si xatam gu njëkk a daal jàppal ne ñu toll ni Coupe d'Afrique bi nga xam ne équipe nationale fas yéene dem yéenekaay ba lañ ci andi daal moo di fi ñu toll ni daal prime jour yi euh, yokk nañ ko ndax naam mën nañ wax ne fi ñu toll ni daal amuñ kenn ku nekk dina noonu leneen li nag moo di fa nga xam ne fa la ñu dem ci Côte d'Ivoire daal jàppal ne teg nañ leen daan de bonne condition ba tey les écoles la ñuy a ginnaaw gi nga xam ne daal coowal Ndella Madior Diouf jug na li nga xam ne daal moo di pouponnière yi moom nag lam ci andi condition yi nga xam ne moom lañ koy tijjee beneen bi mooy règle maanaam organisation ak fonctionnement yi nam ca nara a demee njiitum réew mi Macky Sall naka lam ci wax fi ñu toll ni daal bëggatul déggati coowal pouponnière fii si réew mi yoo xam ne dañ koy tijjee si anam goo xam xam ne jaarul yoon ñu jëlaat benn yéenekaay wax ca la ca gën a fës vox populaire moom la ñu xatee xatam bu njëkk non daaw da nga ne Macky Sall mu ne Macky Sall yéenekaay bi Ah, waaw non dellu dellu dellu <laughs> dellu dellu dellu ngir yàlla dañuy delluwaat si yéenekaay bi nga xam ne moo di euh, moo di Les Échos moom la mu xatee si xat euh, moom la mu xatee si xatum bu njëkk moo di njiitum réew mi Macky Sall jël na décret ngir euh, an gi nga xam ne noonu la ñuy tijjee tijjee li nga xam ne moo di pépinière yi naam nag jamono gi lam ca wax moo di an gi nga xam ne noonu lañ koy tijjee beneen bi mooy règle organisation ak fonctionnement yi leneen li moo di anam gi nga xam ne it moom lañ te nari jël xale yi moom nag lam ca wax moo di bëggul coow yi nga xam ne dégg nañ ko jamono jamono gi ci pépinière mu amaat fii ci réew mi ñu jëlaat beneen yéenekaay wax ca la ci gën a populaire moom nag la mu xëtee si xëtam gu njëkk daal moo di jeux olympique de la jeunesse bi nar a am fii si Dakar bu jotee jàppal nag ki nga xam ne moo di doomu Jean-Paul Dias bi di Barthélemy Dias moom moomee dafa maire ba futu jamono gi nag lam ci wax fi ñu ni daal moo ngi menacé ñi nga xam ne moo di palais lam leen wax daal moo di boo defaatee Sénégal ñu jëlaat beneen yéenekaay waxtaan la ci gën a fës dañuy jël yéenekaay bi nga xam ne moo di la Tribune journal Bougane Gueye Dany bi moom naka lam ci wax fi ñu toll nii daal dafa ne sept sages yi nga xam ne ñoo nekk sa conseil constitutionnel ñoom ñoo ñee tàmbale nañoo violé li nga xam ne moo di loi bi naam nag fi ñu toll nii tirage yi nga xam ne moom lañ naroon def ci parrainage dañ ko pousse looloo tax nag yéenekaay bi ne lan moo tax loolee ñu euh, pousse ko looloo tax nag yéenekaay bi jàpp ne euh, mën nañ jàpp ne fi ñu toll nii daal sept sages yi tàmbale nañoo violé te dara tàmbaleegul ñu jëlaat beneen yéenekaay wax ci la ca gën a fës dañuy jël yéenekaay bi nga xam ne moo di l'observateur l'observateur la mu xëtee si xëtam gu njëkk moo di coowal pépinière yi nga xam ne daal ñu ngi ci tudd ki nga xam ne moo di Ndella Madior Diouf yéenekaay bi nag lañ ca àndi moo di naam ni nga xam ne noonu lañ doon defee visite maanaam visite yi pour xool ñooñu dañoo wan lor nekkul woon lu jaar yoon waaye nag am na it nag ay accouchement yoo xam ne noté woon nañ ko foofee nga xam ne moo ca simal bu ñu sukkandikoo si euh, chef de bi nga xam ne moo di Langmaré euh, moom moomee nga xam ne mooy euh, chef de village simal te Ndella Madior dëkkee foofu moom nag lam ci moo di daal njëkkoon na artu li nga xam ne moo di njëkkoon na artu maanaam ñi nga xam ne ñoo di autorité waaye ñoom ñoo ñee daal ñu jëlul woon seeni Eh, eh, seeni wareef jëlaat beneen yéenekaay wax ca la ca gën a fës dañu ñëw ci yor yor yor moom la mu xëtee si xatam gu njëkk daal mën nañu wax ne na li nga xam ne moo di candidature am yéenekaay bi nag lam ci andi fi ñu moo di Ousmane Sonko bu eh, di Ousmane Sonko kàddu yama andi moo di bu nekkulee yàlla amul kenn koo xam ne daal mën na téye maanaam li nga xam ne moo di candidature am ñu jëlaat beneen yéenekaay wax ca la ca gën a fës dañu jël l'informateur l'informateur mën nañu wax ne fi ñu toll ni daal fee nga xam ne mooy ca nord daal neexul ndaxte yéeni kaay bi ne la fa noté naam ñàkk xam ne ñoo faree si Kalidou Wague naam wax ne foofee dégg nañ ba am sax ay xam ne tàmbale nañ ko faa noté looloo tax nag yéeni kaay bi ne la xew ca Matam daal buñ ca jugalee daal fa muy mujj du baax jëlaat beneen yéeni kaay wax ca la la ca gën a fës jël yéenekaay bi nga xam ne moo di Dakar Presse Dakar Presse moom la mu xëtee si xëtam mu njëkk moo di investiture Ousmane Sonko bi di coalition 2024 bi ñu fas yéene def fee nga xam ne moo ca ak APS le 30 décembre bi nag nag lam ci andi moo di euh, fi ñu toll ni daal mën nañ wax ne euh, mën nañ wax ne Ousmane Sonko euh, candidature am fee nga xam ne daal moo di tàggat yaram tàggat yaram moom la mu xatee ci xatam bu njëkk moo di daal fi toll ni attaquant Sénégal bi nga xam ne moo di Boulaye Dia ginnaaw gi nga xam ne am na ay jafe-jafe si wàllum